leen wax ne tey dama fi ñëwoon en tant que ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation nekk ndaw loo xam ni le président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ma yebal moom ak son premier ministre Ousmane Sonko. gouvernement la boo xam ne dañ koy door a fal ñu ne liggéey bi nga xam ne ci la ñu jublu dinañu fexe balaa ñu ciy def dara ñu xam lan mooy situation dëkk bi. fan la dëkk bi tollu ak lan mooy tolluwaayu dëkk bi man nag ci pàcc bi nga xam ne moom lañu ma dénk muy njàngum université yi ma ni naa def tournée parce que bëgguma rek wax loo xam ni moom la ñu ma jox ci ay documents ma lire ko bëgguma rek wax loo xam ni mooy sama xalaatu bopp ci laa décidé ne damay def tournée nationale dem seeti université yi autorités yi nga xam ne ñoom la fa état teg gouvernement teg leen fa ma waxtaan ak ñoom xam nan la ñuy liggéeyee lan mooy seen problème ak lan mooy seen solution tournée boobu maa ko commencé semaine passée commencé ko ci université numérique Cheikh Hamidou Kane waxtaan ak ñoom waxtaan yu am solo tey début de semaine bi ñu ñëw université Cheikh Anta Diop bu Dakar université Cheikh Anta Diop bu Dakar jarul présenté parce que moom mooy taawu université yi ci Sénégal moo jëkk a juddu moom mooy université bi nga xam ne moo ëpp étudiants parce que cent mille étudiants c'est une ville waaye itam mooy université bi nga xam ne mooy représenter dignement Sénégal ci Afrique foo dem ci Afrique francophone ñu ne la université Cheikh Anta Diop moom moo jël premier ci classement bi loolu nag nekk suñu fierté boo xam ne képp kuy sénégalais da nga ciy am lu la neex am ci fierté bi ñu ñëwee nag tournée bi tey dañu ko commencé fa la ñuy woowee rectorat li ngeen di woowee campus académique nga xam ne fa la ñuy jàngee ba ñu ñëwee ñu ngi fa fekk monsieur le recteur Ali Mbaye nga xam ne dalal nañu conduire ñu boole ñu ak équipe yi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñu waxtaan fa waxtaan yu am solo ci waxtaan yooyu fexe nañu ba ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci jëme côté rectorat fekk nañ donc nañu waxtaanee ak waa rectorat noonu la ñu waxtaanee ak professeur enseignant chercheur yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale noonu la ñuy waxtaanee ak personnel administratif et technique yi nga xam ne ñoom buñ ci bokkul liggéey bi du dem noonu la ñuy waxtaanee foofu ak SAES e ak SUDES e nga xam ne ñoom ñooy syndicat yi noonu la ñuy waxtaanee ak ñëpp ñi nga xam ne représenté na am nañu représentant ci conseil académique bi président conseil d'administration bi aussi mu ngi fa woon ak ñamu àndal waxtaan yooyu nag lañu ci jëlee bari na ay poñ yoo xam ne ñoom ñi di liggéey ci université bi wax nañ ñu ne moom moo leen amal solo naturellement wax nañ ñu seen ay problème wax nañ ñu seen ay doléance waaye nag li ma gën a neex ci visite bi mooy fuñ ñu waxee problème waxaale nañ ñu ne problème bi kat lii ak lii moo koy saafaraal donc ni ñu fi ñëwee ak valise problème noonu la ñuy ñibbee itam ak valise u solution en sachant que ay magu jëmm lañ ay partenaires lañ bu ñu toogee waxtaan dinañu jubboo ci lu bari. benn nag ci point yooyu parce que bari na mais am na ci benn boo xam ne dafa ñu soxal te priorité la pour ñun parce que depuis ñu ñëw ci ministère bi dañu gis ne problème yu bari yu fi am mu ngi jógee sur le fait que Sénégal amatul calendrier universitaire amatul calendrier académique calendrier académique mooy école telle date lay tijji telle dat lay tëj loolu université Sénégal yi booy xool pratiquement amatuñ te loolu ñu ko ñàkk am dafa am ay njeexital ci njàng mi ci bourse yi ak yeneen yu bari nee nañ ñu tey bu ñu fexe woon ba année scolaire bi delluwaat normal nga xam kañ ngay tijji ak kañ ngay tëj lu mu bon bon di nga ci génne vingt cinq milliards yoo xam ne dañ koy économiser te vingt cinq milliards yooyu ci université bi lay delluwaat loolu nag waxtaan nañu ak ñëpp ba décidé ne ci fan yu néew dinañ ci def séminaire boo xam ni dinañu dajale képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci université bu ñu ciy jógee dinañ am résultat boo xam ne dinañu wan nan la ñuy stabiliser année académique bi ba xam kañ la ñuy tijji ak kañ la ñuy tëj résultat yooyu bu ñu paree dinañ ko jébbal le premier ministre Ousmane Sonko jébbal ko la président de la République Bassirou Diomaye Faye en espérant que dès cette première année et avec les premiers résultat du bag dinañ mën a orienter étudiants yi tranquillement waaye loolu nag bu ñu ko waxee xam ne mën na am partenaires yi ñu ko seexal yëpp xam ne mën na am ñun waa ministère bi nangu nañ ne dafa am lu muy àntal parce que nag mënoo ñëw aussi ñenn ñi nga demander leen yenn sacrifice yi pour année bi normalaat ba pare bàyyi leen ci condition de travail yi nga xam ne ci lañ nekkoon donc loolu ministère bi dina ci liggéey ba nga xam ne lépp luy mesure d'accompagnement bu ñuy warloo ak enseignants yi ak PATS yi dinañ ko def bu soobee yàlla te loolu benn ci ñoom mooy chantier yi dañ lay wax ne la suñu chantier yi parewul mooy tax étudiants yi amuñu fu ñuy jàngee dañ lay wax ne enseignants chercheurs yi bariwuñu moo tax pour corriger copie yi ak def évaluation dafay metti yooyu yëpp dinañ ci waxtaan bu soobee yàlla ci séminaire boobu mais li nga ciy jàpp mooy que ce muy COUD wala muy rectorat def nañ ay visite de chantier ngoon bi ba ñu jógee rectorat ñu ngi ko consacré COUD le directeur du COUD monsieur Sène bi fi taxaw dalal ñu dalal bu rafet ak dalal bu neex ñu commencé dem ci université bi ci restaurant bi añee fa ak étudiants yi muy añ bu neex nag wax dëgg yàlla xaw ma nag monsieur le directeur ndegam añ la bu ñu jagleel pour ministre bi wala ndegam étudiants yi tous les jours loolu la ñuy añee waaye daal teral nañ ñu jox nañ ñu añ bu neex añ nañ fa ba suur bu dee étudiants yi loolu la ñuy lekk chaque jour macha allah sant yàlla. ba ñu paree aussi visité nañ chantier yi nga xam ne ñoo fi nekk ci rectorat déjà visité woon nañ fa ñaari bâtiment benn bi mooy chapiteaux yi nga xam ne moom la étudiant en sciences politiques yi war a defee cours pareegul waxtaan nañ ak ki nga xam ne moo yor chantier boobu jox nañu ay délais yoo xam ne ci lu yàggul lool étudiants yi dinañ fa mën dem jàngi te délais yooyu mu ñu jox bu dee respecté nañ ko bu ñuy retravailler waat ci calendrier académique bi dina gën a yomb. am na fa tam bâtiment boo xam ne fac science moo ko moom pare na mais dafa am problème mu ndox problème mu équipement ak problème mu boo xam ne dinañ ci taxaw liggéey lu mu gën a gaaw a gaaw. biñ ñëwee nag COUD au delà de restaurant bi ànd nañ ak directeur du COUD ak waa AMSA ñu visiter pavillon yu bees yi nga xam ne moom ngeen fii gis pare nañ en tout cas ba ma fa duggee visiter bu dee wax dëgg rek moo neex yàlla nekk na ay logement yoo xam ne rafet nañ rafet nañ lool niñ ko defaree baax na te xam naa étudiants yi nga xam ne ñëw ciy dëkk dinañ nekk dans de bonnes conditions de travail li ci des nag mooy dafa am affaire këyit yi ñu war a lijjanti ñun ak COUD ak waa ministère bi ba nga xam ne ci fan yu néew dinañ ko jox kudd mu mettre ko à la disposition des étudiants kon jàpp nañ ne étudiants yi nga xam ne ñoo war a ñëw bu ñu leen joxee loolu ñu nekk ci chambre universitaire yooyu nañ nekk dans de bon condition de travail Université Sénégal jëm kanam fi ñu terminé nag mooy réunion bi ñu def ak waa COUD rencontré nañ waa COUD ci boppam xam seen problème rencontré nañ syndicats yi xam seen problème rencontré nañ étudiants yi xam seen problème rencontré nañ le personnel administratif et technique xam seen problème rencontré nañ aussi repreneurs yi waaye comme nañ ko defee woon sa suba ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku ci wax sa problème wax nga noo xalaat ne moom nga koy noonu lañ koy saafaraare donc ministère bi jot nañ doléance yi ñu ngi ciy liggéey problème bi am Sénégal nag mooy ñun gouvernement buy door a ñëw la boo xam ne fekk nañ ñu voté budget ba pare dinañu taxaw ci saafaraal problème mu étudiants yi problème mu ak problème mu COUD mais ñuy ñaan nit ñi rek ñu xam ne ñun dañu nekk di door a toog problème yi fi nekk gis nañ ko te bu ñu àndee liggéey en partenariat bu soobee yàlla dinañ am solution ci problème yooyu may sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk mooy le recteur monsieur Mbaye mooy le directeur du COUD monsieur Sène waa ministère bi ma àndal étudiants yi ma accueillir personnel administratif et technique ne leen lii rek mooy Sénégal tey li ma gis UCAD xam naa ne bu ma demee ci yeneen université yi au niveau du Sénégal loolu laay gis donc de ce point de vue UCAD symbole la UCAD point de départ la appel bi may lancé rek mooy nañu nit ñi jàppale ci liggéey bi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ba ñu xësee ba def élection ba ñu fay Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye mënatul xàmmee ku ko voteel ak ku ko voteel ku ko voteel ak ku ko voteelul sénégalais ga te moom dafay liggéey pour sénégalais yëpp moo tax nañu toogaat xoolaat suñu bopp dund nañu fi ay at yu metti ci trois dernières années yi loolu jeex na Sénégal delluwaat nañ nekk benn nañu jàppalante ñu ñëpp dans le cadre de la solidarité dans le cadre du patriotisme ku nekk yéene sa bopp jàmm ku nekk fa nga toog di liggéey i compris yéen journalistes yi ngeen jàppale ñu même ci communication bi pour sénégalais yi gis ne ñii ñu fi teg ñu ngi liggéey tekkiwul nag ne ku d'accordul doo wax ku d'accordul di nga wax la nga d'accordul ñu waxtaan ci parce que ñun li ñu intéressé intéresser le président de la république intéresser le premier ministre mooy trouver des solutions pour les sénégalais maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.